campagne bi lañ doon wax. fond ah. campagne bi. waaw fond campagne bi je pense que c'est une très bonne chose. c'est une très bonne chose pour le parti au pouvoir parce que l'argent xaalis xaalis xaalis dafa yàq et doo mën a natt conviction nit ñi. waaw ah, le fait que génn lu mu war a génn mais am na lu génn non de cette difficulté là am na lu ah. génn dans tous les partis gis nga aujourd'hui l'opposition est plus riche que le pouvoir. ah oui oui. Eh, eh, quelle opposition. l'opposition du de Taxawu Ndakaaru de. ah oui oui de de Sonko mais ils sont très riches. xam nga sa oto yi ñu dawal ak fi ñu nekk ils sont très riches. mais foofu parfois même ils sont plus. ku nekk ku nekk da ngay indi sa li nga. mais yow ban li nga yor ay wala rek. ba ne au oh, xool ah, kon dañu yor ay biens ay affaires xam nga Sénégal fii ñun ñun ñun ñëpp ñoo fi dëkk. <laughs> dof newu fii gars yi ku nekk am nga koy jëlee bu kenn bu kenn nax kenn. ok bu kenn nax kenn xëy xëy xëy rek créer télévision créer équipe de football créer li créer li créer ku am nga koy jëlee. ok que ça soit dans l'opposition xëy xëy tabax jàkk jàkk ji xaalis am na fu muy jógee. et cetera et cetera gis nga fii xam nga la ma fi nekk la ma fi nekk muusantu nit ñi bëgg na def si nga Sénégal. mais daal depuis 2000 mais jot ngeen depuis 2000 Abdoulaye Wade a réussi loo xam ne opposition bi dañu dañu riche en 2011 ce qui s'est passé et ba tey ñu ngi koy ñu ngi koy gis ñoo xam ne dañu leen financé leneen ak leneen ak leneen am na ci lu mu jur loo xam ne sax bëgguñu ko wax. Abdoulaye Wade moo ko moo ko réussir. mais non c'est-à-dire que on a on a donné une certaine liberté ak permettre leen ñu def yenn parce que aujourd'hui l'opposition Dakar la difficulté en 2011 mais opposition fa la doon regroupé mairie ville de Dakar dans les maires d'arrondissement financement yi fa la doon génne et tout ça et les gens ont fermé les yeux et ont laissé mais ku nekk ku nekk def li nga bëgg ensuite opposition am na fenn fu mu jëlee xaalis fenn foo xam ne ñoom ñoom ñoo ko xam. déet bu fa opposition jëlee rek pouvoir jëlee ko mais mais mais quand même l'affaire Lamine Diack est là quand même après am na yoo xam ne feeñul loolu moo feeñ. loolu moo feeñ et même des hommes d'affaires on a vu l'UNACOIS avec les commerçants tey ceeb bi finance et cetera donc gars yi xaalis bi mu wër fi mu nekk xam nga c'est un problème d'intérêt am na fi même des des des des de des des propriétaires de chaînes de télévision à un mais euh, su Wade dañu jóg jàppale yi jàppale opposition bi je donne l'exemple de sa Ndour après mais joxe ko pour noonu rek. def ko discuter daf ko daf ko marchander après bu subaa boo affaire lii nga jox ma lii après bi affaire bi jeexee jox nañ ko. alors te bi aussi bi mu sentir ne Macky Sall aussi dafa war a dem mais dafa génnaat après dina jëlaat position feneen wala mu jël position dans l'opposition moom moo xam bu jëlul ba pare sax mais c'est ce qui se passe dans ce pays là gis nga gis nga bu ñu naxante gis nga voie de contournement yi waxante kii bi dëbb ndox et tout ça loolu dafa fi jarul les problèmes lañ yi xam nañu li normal ak li est-ce que vous avez. on nous a parlé de système dans le système et tout loolu yëpp a fi gis nañ fi ñu fi candidat ba nga xam ne ci diw boobu diw mooy diw kon loolu fu loolu fu amee.